ñu toll ci wàccaayu màggaluk sëriñ Abdou Khadre Mbacke loole di sababu gouverneur bu Diourbel woote woon ndaje mi nga xamante ni abal nañ ko ci gouvernance bi ci teewaayuk sëriñ Sidi Mbacke mi nga xam ne moo yore comité d'organisation bu màggal sëriñ Abdou Khadre gi ñu doon càmbaraat mbooleem ponk yi nga xam ne jëm na ci màggal gi ñu nekk ci jamonoy nawet tax na ba bërëb yi nga xam ne day taa te mën a indi gàllankoor ci dem ak dikk bi loole lépp ñu waxtaan ci waaye gouverneur ne daañ ci indi solution. ndax sapeur fi nga xam ne day inondé daf ci am yoo xam ne dañuy soxla ay jumtukaay liñ naan électropompe électropompe ni ko comme li ko tur bi wuyoo ñoom courant lay daw il faut seen Senelec wàccal leen foo xam ne moom la ñuy branché pour mën a pomper. ñoom dinañ leen ko defal sapeur boo leen jógee di ngeen dem ci Sédélec parce que loolu moo des rawatina nag boori kër sëñ euh, Bas porte parole foofu ay ñaar fukki at foofu moom daal dëkk di ji de yaakaar naa ne te jege na fi nga xam ne ONAS def na fa euh, système am. waaye am na ci benn point boo xam ne dafay laaj hydrocureur bi ñu xaymaa point boobu. bu amul procureur dina gêner lu bëri ci màggal gi loolu nag ONAS taxaw na pour teg fa benn hydroculeur mooy ci station Shell bi parce que ñoom foofu dañ ko soxla daf cee dañ fa am projet waaye ginnaaw projet ba pareegul léegi te ndox ma daf fay mën na gàllankoor lu bari dañ fa yóbbu hydroculeur ku ne màggal ni ndox tax na ba forage bi nga xam ne moo nekkee ci Bagdad dafa panne waaye gouverneur insisté na ci ñu dépanner ko laataay màggal gi ngir ndox mën na bañ a manqué benn yoon. dañ demoon dañu amoon ñetti forage yoo xam ne ci Touba euh, actuellement dafa paanoon waaye OFOR jàpp nañ ci ba bi ñu defee réunion fii dimbali nañu ba indil nañu pompe bu bees ba benn forage bi pare na mu des ñaari forage yoo xam ne ñoo paan benn nag muy forage yu Bagdad boobu moom mënul ñàkk baax. avant màggal ndax comme ni ngeen ko waxee léegi euh, lu bari daf ci dugg mu und lu bari ci barke waaye ci stratégie maanaam mënul ñàkk nañ baral suñu loxo te mu baax loolu mooy euh, message bi ma leen di lancé ci côté boobu. Serigne Sidi Mbacke mi nga xam ne moom moo fa teewaloon comité d'organisation bi bég ci matuwaay yi nga xam ne jël nañ ko. ñoom it nga xam ne saa bu tollee ba egg ca màggal la dañuy bàyyi fii yëpp. di xëy ci gis nañu Abdou Khadre ngir la defar bis bi ak lu ko yéwénal ñëpp ñu ngi leen di gërëm di tudd Serigne Cheikh Mbacke di leen sant bu baax a baax di la xamal ne kontaan na bu baax a baax la ku ci bis bi nga ne ci leen jëm suñu bisu Cheikh Abdou Khadre Mbacke bis koo xam ne si yàlla ak liggéey yonent rek moo doon ay tànkam hmm. nit ko bëggoon ñëpp amul am noonu fu baax fu lu mu dégg ak fu mu ko dégg mel na ne moo ko jëf mel na moo lu ko jëf hmm. loolu la bindee woon lu baax rek la bëggoon doon nitum jëpp moo tax saa bu ci bisa nit ñëpp dañuy jàppale seen bisa gouverneur mi ngi xamle ne daañu mettre en place benn comité de suivi ngir càmbar mboolem ponk yi nga xam ne moom lañ fi jël saa su ne di natt fan lañ ci tollu ngir waa waajal màggaluk Serigne Abdoul Khadr mi nga xam ne moo nekkoon ñeenteelu xalif général des Mourides mu war a am le 3 septembre 2019 fii ci Touba Mbacké